alors monsieur Fall yi nuyu naa leen ah. ñu ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ngi yàgg euh, ci li nga xam ne moom mooy site internet yi nga ñëw fekkee si li nga xam ne moom mooy conseil Bah Diakhaté mën nañ caa dolli sax ki nga xam ne moom mooy imam Cheikh Tidiane Ndao sa taxawaay bien avant ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy mbir euh, lii du du warul warul bett kenn. Mm. ñëw tribunal taxawu un un de parti wala un camarade républicain. il faut faire la précision du mbetteel lu mu wa lu ma war la loo xamante ni lu war a am la pourquoi mu war a am parce que nous some dans un régime boo xamante ni dafa nekk dans un comportement dictatorial pour xañ doomu aadama liberté sa liberté d'expression parce que ñaar ñi nga xam ne ñoo tax suñu ñëw fii ci kaw tribunal muy Bah Diakhaté ak Imam Ndao defuñu lu dul wax benn xal seen xalaat par rapport ak yenn xew-xew yi am ci réew mi donte ñenn ñi nee nañ kàddu yi ñaaw nañ dent yi ñenn ñi jàpp nañ ne kàddu yi ñaaw na mais Sénégal dégg nañ fi dix deux mille vingt et un ba deux mille vingt quatre kàddu yu ko gën a ñaaw te kenn wax ci dara. parce que gis nañ ni ki nga xam ne tey moom mooy moo jiite suñu réew di Adja Adja moo jiite réewu Sénégal. kan ci ki jiite suñu réew. mooy na def ci poste Facebook saaga magistrat yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. du dëgg. gis nañ koo xamante ni tey mooy jiite gouvernement bu Sénégal. yekk magistrat yu mel ni xeme donc tey ñu ànd ñu baajaxate ci biir tribunal ci loo xamante ni la teguñu ko ci benn yoon ma wax pourquoi ma ne teguñu ko ci benn yoon parce que Bah Diakhaté otage politique la du du baajaxate Diakhaté du prisonnier du leneen otage la parce que dañ ko kidnappé dañ ko def rab pour tëj làmmiñam xam nga tax ma ne la pour tëj làmmiñam hmm. parce que bañ koy jël si dafa fekkoon mu prévoir def live a 15 heures Bah Diakhaté fi mu jëmoon ak nguur gi nga xam ne ñooy doog a falu pour gindi askanu Sénégal ci li nga xam ne moom nooy mooy mooy lu ñaaw li ñaaw li nga xam ne def nañ ko avant ñu verser de pouvoir baaxuloon ci nguur gi moo tax ñu bëgg ko tëj téye tëj làmmiñam parce que tey bu mu leen bett tey ci biir tribunal bi ñu def ko contrainte par corps libéré libéré ko mu ñibbi këram pour mu bañ a waxati. Hmm. bu leen bett. quelle appréciation faites-vous gannaaw ñu bëri bu ñuy yëkkatiwee euh, l' article deux cent cinquante cinq bu code pénal wax. Euh, sur l' cent deux cent cinquante quatre et l' article deux cent cinquante cinq. 1977 lañ ko dugal suñu code de procédure code pénal article boobu bañ koy def Jean Collin moo taxoon ñu def ko te bañ ko joxee Jean Collin président de la République d'alors dafa bind décret won askanu Sénégal ne leen pouvoir yii la ñu jox Jean Collin mais gis nañ ni président de la république bu fi ne bindul décret pour jox ay pouvoir am président premier ministre bi actuel bi donc offense au premier ministre wala offense à quelqu'un boo xam dañ ko jox pouvoir amul parce que amul article cinquante bu constitution moo ne président de la république mën na jël ci ay pouvoir am jox ku ko neex mais ci kaw mu bind décret yoone ko yéen ay tàgg ay tàkkatu xibaar ngeen gis ngeen ni amul benn décret bu yëkkati ay pouvoir jox ko premier ministre bu Sénégal wala jox ko benn citoyen sénégalais donc convocation Bah Diakhaté teguñu ko ci benn mbir lu dul jaay doole parce que pouvoir yooyu pouvoir yooyu ñu yëkkati jox ko premier ministre amul benn décret bu koy confirmer ku ci génne décret rek je défie quiconque de sortir ce décret ce fameux décret là bi nga xam ne yëkkati pouvoir jox ko premier ministre donc c'est en violation flagrante de nos lois tey nous nous sommes en face d'un régime boo xamante ñoom ñoo njëkk violer les lois de notre texte de notre pays ci naka noonu mooy dañoo jàpp nit ci ay pouvoir yoo xamante ni amul donte code électoral code code pénal moo ko joxe mais constitution bu Sénégal dafa ne nañu bind décret jox ko donc pouvoir yooyu amul pouvoir yooyu moo mag suñu président de la République article cinquante deux cent cinquante moo mag suñu président de la République article cinq moo mag suñu président de la République te ñoom dañ doon xeex loolu pour loolu jeex Sénégal dañ doon xeex ñoom ba ñu nekkee opposition dañ doon wax ni pour loolu dafa war a jeex Sénégal mais le le procureur de la République je le cite il s'est autosaisi par rapport à cette affaire nous nous disons que procureur de la République du moom moo autosaisi il a reçu l'injonction du procureur du ministre de la justice du premier ministre et du président de la République parce que jàpp nañ ni ñi kidnappé Bah du kenn ku dul le président de la République ngi ñuy wax ñu daan Euh, du premier ministre wala président assemblée euh, président de euh, du ne. Mm. y jamais eu de plainte venant de Ousmane Sonko. Mm. et je défie quiconque de le de me de me de me montrer cette plainte. c'est le procureur qui s'est autosaisi par rapport à ce dossier. le procureur dafa waane na ma baal askan bi nañ ma baal mais dafa waane xam nga mu waane. Mm. Azoura Fall taxaw na fi saaga ndey suñu président de la République Azoura Fall taxaw na fi saaga ndey suñu premier ministre Azora Fall taxaw na fi def ma def def ma man mii taxaw menace de mort le procureur de la république ne s'est pas autosaisi c'est de l'impunité kumba am ndey kumba amul ndey bi ñu doon wax Sénégal moo fi am démb ak barke démb loolu moo sax tey jeexu fi moo fi continuer et pourtant nag ku nekk ku ñeme dëgg ku ñeme dëgg di nga xam ni Sénégal amul dara lu ci soppeeku ci luñ doon kaas ñoom démb ak barke démb Macky Sall la dem Diomaye ak Sonko ñëw toog du leneen rien n'a changé à l'horizon aujourd'hui nous avons nous vivons une un régime dictatorial fii ci biir réew mi mooy kenn amul droit wax soxlaam kenn amul droit wax xalaatam ñoom su leen neexee ñu saaga ñun suñu neexee duñu wax sañu xalaat doomu aadama buy dund mënul tëj suñu làmmiñ bii parce que lii xew Sénégal dinañ ko wax sénégalais yi. alors euh, on est à la veille euh, du dialogue yan ngay xaar mais réforme amu ci. réforme amul Sénégal réforme amul Sénégal tax ma réforme amul Sénégal lépp a été fait en 2018 par le gouvernement du président de la République Macky Sall dem leen xool les con conclusions de la des de la justice cinquante la vous êtes des journalistes allez vous documenter soo leen paree ma jox leen document boobu lépp lu ñu war def par rapport à la justice sénégalaise a été écrit depuis par le gouvernement du président de la République ñun li ñu bëgg def mooy naka la ñuy def pour lekk xaalisu askan parce que dialogue assise de la justice boo xamante ni 4 jours 5 jours lay jëm képp koo xamante ni di nga toog ci justice bi dinañ la jox per diem képp koo xamante fay malheureusement on a vu que des gens ont été comme des criminels ont été convoqués dans cette assise. comme qui. Clédor les magistrats des gens qui sont des repris de justice ont été convoqués dans cette assise ba pare ñu fàtte. les juges les hommes de droit mais dans le texte du président de la République Macky Sall lépp loo xamante ne war nañ ko def les juges ñoo ko def parce que ils ont même pensé à mettre en place la haute cour de justiciables loolu loolu loolu soo liiree conclusion yi nga xam ne président Macky Sall dépassé na lii lii ñuy def c'est du dilatoire lii ñuy def af waxu caaxaan la parce que li ñuy xaar mooy askan bi nee nañ dañoo xiif askanu Sénégal nee nañ lekkatuñu naanatuñu askanu Sénégal nee na courant baa ngi coupé askanu Sénégal nee na woyofal cher na. en conclusion lan mooy ay kàcc la dara amu ci. Mm. man je parle en connaissance de cause. Mm. li ñuy wax ci mbirum transaction financière. Mm. poudre aux yeux la taxal Bah Diakhaté par rapport à gis ngeen ci kenn ku ci génn def ci sorti am na ku ci génn dañ ko tuumaal mu génn def ci sorti Bah Diakhaté dafa amoon jàmm ak ñëpp. donc les réquisitions qui ont été faites ne sont pas avérées. mais réquisitions yi ñu war a wax mooy les réquisitions de ce fameux téléphone de Unku Sall de de de Sonko. waaw réquisitions yooyu la ñu war a wax. des waaw bu leen ñu wax la ah. Mm. des ont reçu de l'argent venant de ce parti-là. Nous les connaissons tous. bu leen di wax loo bu leen di wax loo bu leen di wax loo dama ci am xarit moo tax ñu bëgg noppi ci question boobu mais suñu continuer sur ces réquisitions nous sortirons les réquisitions du téléphone de Ousmane Sonko. mais boobu ba tey su fekkee information yi génn ñu. dama ne dama ne mhm. li ma wax mooy. bu ñu yàq grand boy bu yàkkamti man ngay waxal man awma lu may tiit man jënd naa sama mat laa man jënd naa sama mat laa ba pare sama mer gàddu jënd naa ko ba pare hmm. te ñun ñii ñëpp jënd nañ suñu mer gàddu ba pare hmm. bu leen fàtte ni nag ñetti at la ñu def ci opposition jàkkaarloog pouvoir bi lem ko def suñu biir poche miin nañ ko xam nañ nu ñuy xeexee xam nañ nu ñuy déstabiliser un pouvoir te nag nañu def attention par rapport à ce les actes qu'ils sont en train de poser ce pays là n'appartient pas à ce couple là <laughs> ce pays là n'appartient pas à ce couple là qui ne dit pas son nom loolu mooy dëgg dama ñun taxaw nañ tem te nous demandons la libération immédiate de Bah Diakhaté je vous remercie. dama ne. muy Cheikh Ahmed Tidiane muy Bah Diakhaté. muy muy keneen. képp koo xamante ni jàpp nañ la d'une manière arbitraire dans ce pays nous réclamons leur libération immédiate et sans condition parce que nag ay waay bés xamoon li leen di yoot dinañ bàyyi li ñuy yoot parce que man nag maa wax de man maa wax man maa wax quoi keneen waxul je vous remercie. merci beaucoup mu nekkoon euh, des appréciations des différents euh, acteurs waaye dañuy woy rek continuer jëlal leen ay réaction